gis nga femme bi aussi li mu wax yi indi na lenn te tubaab bi nga xam ne moom moo ko doon seet ba wax ko parce que nee na moom jëkkër ji daf koy dóor dóor yu metti su téléphoné yaayam yaay ji ne ko muñal tu nee na docteur bi ne ko du sa yaay moom mooy encaissé coups yi gis nga àllaaji ñun ñii tamit il faut ñu dimbale suñuy doom yaa xam intérêt la ñu gis ci sëy bi parce que am na ñenn ñoo xamante ne suñu xasee ba mayee seen doom intérêt la finalité la yaa ngi dégg surtout ñoom statut ba seen doom am dara taxul dara warul tax ñu wàcc ko ba sa doom su bëggee dee ci sëy ba sax oola nga ne ko muñal loolu tamit il faut tamit yaay yi di ñu ci dimbale muñ di nga muñ ñàkk muñ am muñ feebar muñ yëpp mais muñ ay dóor ak muñ ay faagaagal yow ñu jox la nit koo xam ne amul benn cicatrice nga indi ko benn bët ba toj bëñ ya damm gémmiñ nga màbb ñu lay naan muñal laaji nag. waaw xam nga diggante dafa ne toujours ñaare waxoon naa la démb ni la. am na jigéen ñi duñ leen door ba dina tukki. waaye bépp docteur bu ma mën doon boo fi toogoon def face à boo ma nee ñiy dóore dañoo feebar ma weddi ko. Mm. dëkkuruma ci loolu. Mm. dafa am loo xam topp sa nëfsu la. ak it nag euh, def loola soob ak def loola neex. Mm. ak yabaat ak mooy def loola neex. <laughs> allo ci ligne bi. allo. asalaamaaleykum. Euh, na ngeen yéen ku baax ki ñu ngi lay ziar. maa ngi leen siyaar bu baax yaa ak papa Ndiaye diggante moomu. <laughs> maa ngi lay dellu siyaar bu baax. yéen ngi ci yéen a ngi ci yéen ngi ci thème bu am solo nag. Hmm. maa ngi lay wooyee depuis itali Italie ana waa Italie. Ah, waaye daal man ni ma gisee mbir mi. Hmm. ñaare agresseur dina am ci diggante jëkkër ak jabar te ñaare ca doom yi lay soqi ko. Hmm. li jëpp nga ni doom ji doom ji ñaar agresseur de ki ci diggante doom maanaam ci ay doom daal hmm. yaar doom yi ñàkk dégg seen ndigal kilifa hmm. wala waa ilaatim e, ñëpp ñaar ci kenn fa mu war a jaar ci parti doom yi jaaruñu fa li ci ëpp ñaari li leen di boole diggante jëkkër ak jabar ñaari ay dóor bi ci juddu li ci mën nay soqi ko tamit ci diggante njaboot gi waxuma njaboot gu ndaw gi njaboot gu dijji gi nga xam ci maanaam dañoo toll ci génn di lukkiku xam nga bu mën a lukkiku moom wolof nga xam nga lukkiku mm-hmm. maanaam bu fekkente ne yéen ñaar am na ko ci doxalul parti rek coow mën naa am yéen ñaar seen diggante ba tey mën nañ ne ñaar ñoo yor kër gi mais ñett ñoo yor kër gi doom yi ndey gi baay bi ku ci nekk rek xam nga rôle boo war a ci biir kër gi bu fekkee ne baay bi day jàpp ndey ji di ko dóor jaaduwut bu fekkee ne tim doom ji mooy def lu tax waaw loolu daal laa doon naa la anticiper wax la ko. Mhm. wasalaam nag leen gërëm bu baax ci émission bi. te lii moom na ngeen ko continuer def parce que bu ngeen ko lu gën di defee tamit di gën di génn nit ñi nag nañ téléphoné di wax te ni nañ di téléphoné di wax li ñu doon ci biir kër yi nañ koy génne. nañ koy génnee problème yaa ngi ci biir kër yi tam yoo attanu koy génnee parce que lii ngeen def lii ndimbal la ci askan wi na ngeen koy continuer def bu leen bàyyi tam bi tu leen ko ba teg yëpp nit ñi génne ko wasalaam yàlla leen fi yàlla bàyyi. allahumma amin amin alaaji waaw jërëjëf euh, xam nga diggan euh, dafa wax ñetti euh, combat yu am ci biir kër. Mm. doom am cib cër jëkkër am ci cër jabar am cib cër. Mm-hmm. waaye la tax jëkkër di dóor jabar ci doom bu ñu fa yeggee am na lu ñuy ñu weesoon lu ñu waroon régler dañ ko réglé ndax bàyyi am na nu muy demee noo xam bu dee yar doom nday du wax bu tegee ci yoon laa wax ndey du wax ndax bàyyi yilif doom yilif ndey am na lu nag su ko bëggee def ci doom te dëkku ci yoon xolum day jóg ndax doom deret la dafa bari am na ñoo xam ne góor ñu xam dañuy yar du yar ndey lañuy ñuy wit ci doom am jigéen ñoo xam dañuy wit doom ci bàyyi day am yooyu yëpp ne lu ko indi rek dama ni kenn ku ne bu defee waree fam jàmm am ku ne baay bi na yor mbubum kilifa te sol ko te jot sëkk nag te bañ koo sufurle te muy dëgg nag ci moom te tegu nag ci yoon te quelque nag ni ki mu fi indi nag it am na ñu ko doon labat ëpp leen wër sa gën leenu judd mu laf ñee ne ko yawa ba mu gënee yawa nag mun la mën a ngeen ànd toog di waxtaan amoon na boobu lu gën doon tëlkinte ay dóor bokku ci woon signalé wuñ ko woon soo amee googa mat nag te sol mbug moom muy mbugum kilifa te mu jot la sëg di nga mën a régler sa kër ba sa jabar boo ko nee jàkk mu xam li nga bëgg bu la nee jàkk mu xam la mu bëgg alaaji xam nga démb dama la waxoon ne ci kàttanu yàlla sànq ñu ngi doon waxtaan ak réalisation bi ayu bés sax doyul ci tam bi. xanaa la ko. waaw ba tax ñu ngi xool ndax mois de lu ñu ne nii avril bi yëpp duñ ko def ci kàttanu yàlla ci violence conjugale parce que liñ ci war a wax dafa bëri. te bi ñu ko yëkkatee talaata ba léegi bëri na ñoo xamante ne ku ci ne ne lañ ca war a wax bëri na dëgg la ñu ngi ci njëlbéenu thème bi rek ndax su fekkente ne nee naa la alaaji nañu dem ci ngoroli balaa ñuy dugg ci néegu sëy mhm. ngoroli balaa ñuy dugg ci néegu sëy Euh, dafa am fu mu faussé moo tax jeune couple yi sax nekk ci violence mbogali fi mu faussé allah ji dafa bëri ndax léegi dañuy nëbb ku ci ne di nëbb affaire bi làmb la làmb boo xamante ne amaana sax dañuy naan làmb nopp sa jaboot la ku góor ki di ñëw di nëbb boppam jigéen ji nga xamante ne tamit moom lay labat si di nëbb boppam jigéen ji su dee ku ñaaw làmmiñ la ku dang làmmiñ ak koo xamante ne respecté wul sax kër gi nga xamante ne nekk fa la jóge respecté wul ndeyam respecté wul ay magam respecté wul rakam ci kër gi nee la soo ñëwee sax yow soo wanee gannaaw yow muy labat si dëkkandoo yi ñu ngi naan ay waaye soo xamoon ki ngay labat si dégg waaye mu nga nëbb jikkoom ndax bëggatu ko góor gi tamit su dee gasteer la léeg-léeg mu jëfandikoo umbu xabaayis ndeyu ñaawtee fii nga xam ne ku ko def sañ nga lu ne wala boog muy jëfandikoo euh, yàmba wala boog rek mu nekk nit ku nerveux ak koo xamante ne foo mu jugee bàyyi na fa ay traces léeg-léeg su jugee sax di labati xam nga ay sëram ak ay mbokkam lu ñuy wax ay waay ñii de suñ ma laajoon duñ ko may jabar dégg nga hmm. kon mu nekk ñaari caractère yoo xamante ne ku ci ne yaa ngi nëbb sa jikko nga bëgg nag kii ut kii bëgg dugg la ñuy naan ku yut ku la wéttali ak ku ku ku ku fanaan wéttali ak ku yut fu ma fanaan du leen boole ngeen xëy nag nga ne ay wax bëgg ngeen delloo bunt <coughs> bëgg ngeen fanaan ñu daal di dem jàkk xutba waaye dafa am ñenn ñoo xamante ne ba léegi li tax suñu borom bi ci mbaaxam di def sëy ak li mu namm si sëy ba léegi nit ñi dañuy marier pour marier rek moo tax divorce yi bëri alaaji waaye tooguñu réfléchir ba xool lan la yàlla namm ba dajale kii nga xamante ne jóge na Tambacounda Kumba ak kii nga xamante ne ne ko jóge na Koungheul mosuñu gisante yàlla namm ne diw ak diw dinaa leen boole ci néegu sëy ba léegi am na ñoo xam ne réfléchir wuñu ci loolu. waaw waaw. kon alaaji xam nga bés ba ñëw ba bés ba ñëwee li tax ñu ci bëri léegi ci borom xam-xam yi di wax ne suñuy mayee jabar góor ki ak ku jigéen ki dañu war a toog ñu expliquer leen déglu xutba bi heure ba nga xamante ne nekk ñu ngay mayee soxna sa ma nga ca taar ba. defaru dugg saloo génn ci suñuy mëneen góor ba ci tamit tamit ma nga fa nekk di naan ay duma duma lan duma sol caleçon ak yooyu yëpp yàkkamtee jël soxnaa sëpp mbubam waa sëpp mbubam tey xaar waaw kay waaye ba léegi l'essentiel fondement sëy bi ba léegi defuñu ko defuñu ko ca ba nga xamante ne mooy wutin ba aji ko góor ki ak aji ko jigéen ji defuñu ko tamit ci keroog bés bi nga xamante ne nekk mooy bésu mariage bi xam nga kon labat bi maa ngi la koy jox ci fin wu ak ci début sëy jëlal waaw xam nga dama la ñuy diggan lépp lu waay di bëgg bu contrôlé woo ko. Mm. soo amul saa su doon sa njiglaay. ma ña dañoo teyoon démb. Mm. daan def rootum guddi daan tekk. Mm. daan waxtaan ak seen xel. daan waxtaan ak mag ma fi fekk démb lépp. Mm-hmm. te dara ump ko. dëgg la. duggum néeg loolu ñuy wax réunion de famille. Mm-hmm. sama doom ji dama ko bëggal soxna mat na. ma doon laaj xalaat. juróom-benni xalaat yu ànd te yarandoo te jikko ya doon benn. jërëjëf benn bu ca génn mën ngaa ànd ak moom fa mu jëm. ba léegi te do am. jërëjëf loolu daan am démb amatul. dëgg la wax naa ni la Carrefour ngoro gu mu takk anga la koy tas. dëgg loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg neel tekk te xool muy ku góor muy ku jigéen. dëgg la sëy diw la day fekk. Hmm. waaye bu fekk dina saw. dëgg am na ñoo xam ne jigéen ñoo xam yëkkamtiwuñu hmm. fa ñu toog la ñuy dégg seere seen bopp ak seen fullay bopp. dëgg la. takk seen digg fas yéene liggéey lu ñu doon doon doon kone boo ne salaamaaleykum indi yoo xam ne bokkul ci lañu bëgg mbaa lañuy dund doo fa toog bay waxee ngoro déedéet doo am am na góor ñoo xëy dañuy taxasaayo jóge ci kilifa te nag danga daan ñëw gis yi déggan nga ni papa mun la naam nga ni man de gis naa ku ma bëgg mm-hmm. mu ne ah xam nga ko mu ni ah xam naa ndeyam de muy nu mu tudd mënu ko dégg mun ko wax nga dëgg toogal bu fa demati la sa des maa koy dox. waaw kay yooyu daan am démb. mu wootu wootum guddi. laajte. laajte amatul xool kuy xool xale ba jikkoo. dama ne jigéen bu njëkk mooy jaay boppam. Mm. baat bi la ñaawal léegi. Mm. bu bëgg ko tuddee ab doxkat déedéet. Mm. da nga naa tëll ci mpénc ñu yónni la farata. nga dox doxinu lingéer ak sa yar ak say teggin ñu ni jàkk ni waaw kii koo jur ñu ni diw ñu ni ah waaw kay kii mos diwayu ndeyam koy baam ñuy dig ñun kii kay diwooyu baam mm. tey ko amoon kii di ko am am soxna mm. dafa am yoo xay tànk mm. delluwaatunu xanaa rek kay di di labat ci biir salon yii kay salon ku ciy labat ak allah ji intérêt digal mu ñëw. matériel bi la ñuy xool de. yow salon mooy matériel. waaw góor gi xool matériel. jigéen di xool matériel salon mooy matériel. waaw góor ñi léegi dañuy xool matériel. salon mooy matériel. Mm. dugg ci salon di nga ko mel nu nagu rab. Mm. ku góor ko di raf rafi. Mm. ndaw si yaakaar ne fee bu fa demee la mu am fee dootu am fi mu jógee. dootu contrôler. ku góor ki xoolu lenn lu dul. bëgg na sooy am. waaye xool tul jikko. ñaar ñu xoolatu seen i jikko nag te jënd jikko rafetu ci. rawatina nag ki lay la ba si tey góor. Mm. bu duggee ci yow fu mu jaar kurpañ am. alaaji bëgg naa balaa ñuy ànd di dem seet sketch bi xam nga maa ngi la wax soxna si nga xam ne nëbb na jikkoom góor gi nga xam ne tamit am na defoo ba fu mu jógee ñëpp xam ne am na défaut ku ci ne ñu nëbbante ba ñu xutba ba sëy alaaji am na ci ay violence yoo xamante ne ne que ba muy dóor ci biir couple boobu ndaw sa. xalaatagul sax jël violence d'or ndax lii da nga gis ci ay jeunes couple yoo xamante ne ne pour ñoom dóor boobu nga xamante ne ne seen borom kër dóor na leen ko xëy suba comme li xale bi di wax mu jooy ah ñoom dañ koy interpréter parce que amuñu expérience ci àddina te ñu ngi nëpp nëppal bëgguñu ko leen xamal ndax sëy yi léegi xam nga avant sëy yi dañu ko doon nekk ci famille au sens large du terme nga nekk ci kër. dem ci kër googu ba nga xam ne lu ne kundung ñu yëg ko léegi nag xale yi léegi bëgg nañu appartement wala boog suñu nekkee ci biir kër goro yi nëbb nañu seen ay mbir ba nga xam ne suñu fanaanee dóor sax dañ koy làq rawatina ñoom ci seen ex comme amaguñu expérience u àddina dañuy defee ni dóor boobu la seen jëkkër di dóor cofeel la bëgg dégg nga baax li ma la non loolu la ñuy wax dañuy naan ne parce que waa ji daf leen di gëmloo ne dama la bëgg moo tax ma dóor la su ma la bëggoon duma la dóor kon il faut xale yi ci jeune couple yi dama guma fa maa ngi dóor ci ci ci ci néegu sëy bi. Mm-hmm. il faut xale yi def différence entre bëgg ak dóor. parce que da nga ci gis kenn koo xam ne sooy waxtaan ak moom nga ne ko waa dóor yooyu lu tax nga ko doon nëbb mu ne waaw parce que dafa doon wax ne daf ma bëgg moo tax mu may dóor il faut nit ñi xam ne bëgg ak dóor àndul donc loolu il faut ñu leeral ko parce que dañ dem ba nga xam ne dëgguma la euh, euh, yàlla yéeri waaw mooy dóor dañ ko daan def ci mbaam mu bañ mbaam mu bañ <laughs> jërëjëf <laughs> jëf jërëjëf Alaaji kon xale yi ñàkk xam moo tax da nga gis ñenn ñoo xam ne très tôt si jeune couple bi rek waa ji day commencé violent pes lay commencé non balaa pes sax dafa am étape boo xam ne ku ko xool rek war nga inquiété xam nga mooy ban saaga gis nga Alaaji il faut pas que ñuy jouer ak violence verbale nit ñi dañu dem ba nga xam ne dañu banaliser saaga ba da ngay dugg ci ay kër gis xale yi ndaw di saaga parce que xale reflet parent yi dañu tàmm saaga tàmm nañu dégg seen wayjur bu góor di daggal saaga seen waajur bu jigéen tàmm nañu tamit dégg seen waajur bu jigéen di yëkkati baatu saaga di ko def si seen si seen. dama leen ne woon ñaar ñiy sëy saa bu ñu duggee ci benn gaam ba doom ni tëll nañu dëxëñ wax ja mbaa ñu dëxëñ lañ doon jëf ba doom jàll. jërëjëf waxoon naa la ko fii jërëjëf. heure bu ñu jàkkaarloog loolu dañu bëwuñu ko doom ji arbité. dañuy yaakaar ni li université la foo jaar di la say diplôme. dama lay jox paquet dama lay jox paquet bu gën a neex. waaw balaa doom jënd fël wala balaa doom jënd di juddu ngay dëxëñ sax dafa am lenn loo xam ne waroo ko permettre sax ci couple xanaa xamoo alaaji wuute na mu la gisee la lay ëwale. waaw nga wax sànq fii ne. am na ay jigéen yoo xam ne deesu leen dóor deesu leen xas deesu leen saaga ba dina tukki kon loole ci comportement la dafa am nag lenn loo xam ne allah ji soo ci bàyyee lu tel lu day ni tel fatal ay ni ci couple rek mën na engendrer lu bëri bari parce que day ñëw nga ne garaawul saaga bi day nekk ci nasaraan xam nañ ko loo xamante ne gros mot la bu banaal dégg ñu commencé nga bàyyi nga jékki-jékki mu wax la benn bés ne la eh sa yaay ba nga ne ah mu la la nàngam yaa ngi dégg nga yow nga ne ne comme jigéen ka nga delloo ko ko kon échange boobu. nga xam ne mën na aboutir sax ci ay ku échange boobu yow mi jigéen ak yow miy góor nga warul permettre xam nga lu tax xam nga lan moo fi bëreetul alaaj ànd gor gor ak gor baat bi nag yépp nañ ko koo wax mu ne la gor laa waaye ànd gor ñëpp gor lañu ah laaj ma la ñu de kon kon lu jafe kon lu jafe lu jafe lu jafe laaj ma ko waaw gore